kon mbokk yu ñuy suivre à travers le monde ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah. moo xam muy Dakar Actu SD Leewtoo Lutte TV wala buur Gueweul Série Jackson nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm tey nag ñu ngi nekk fi nga xam ne nii moom mooy ci benn espace bu nekk fi nga xam ne moom mooy ci Yoff ñuy nuyu borom place bi Ibulaay ah place ba nan la tuddati sax Poro Oto waa Poro Oto ah wala Oto Poro ak loo ci mën a dégg daal waaw Oto Poro wala Poro Oto rek lépp a mën a lépp a jàll kon ñu ngi koy nuyu Ibou Laye moom di suñu doomu ndey di suñu gayan tey nag place am lañ nekk nii ki fi woo kenn ki la Prince Sissoko si làmb defe naa ne bu ci wootee war na cee woote parce que yaakaar naa tàkkusaan bu ne tëgg na ko ci stade yi moo xam Iba Mar Diop la moo xam Demba Diop la ñaar nag ñoo ma séq tey comme ni ma koy waxee rek Modou Dia xam ngeen ko doomu yoof yaa ngi dégg di mbër di nekk champion am lu mu soxla si làmb te jàpp na ne ci caat la koy amee caata ngi nii toog moom itam di doomu Grand Dakar ñaareel NGB ak John Waar ñoom ñoo ma seq tey Prince nag moo taxawal bii combat kon li nekk daal mooy ci ñoom mbëri laay dem mais balaa may dem ci ñoom dinaa nuyu caméraman yi si ginnaaw caméra yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu Pape Maguette Ba mais nga xam ne moom bokk na si ñi teete Babacar waaw maa ngi lay nuyu borom Zik FM ak Sénégo léew toog fu ne waaye mention spéciale à Lamine Lamine Seck bu Lutte TV mo mo njëkk jox micro nako ko Sénégal yëpp di dégg loolu modja Dia ngi lay bëgg di la ziar. maa ngi lay fay Babacar di nuyu ñëpp ñuñ fi fekk assistance bi yëpp euh, di nuyu borom place bi Papis ak waa pro auto yëpp Iboulaay ak di nuyu sama adversaire ak ñi ma àndal Amar Ba Baye Libas di nuyoo caméraman yeeg yéen ñëpp daal. say weer ñuul na sa jaget ñuul macha allah mais xaaral ma ñu ñu wax ci loolu am naa caat ngay nap caat maa ngi lay bëgg. waa salaamaaleykum Babacar maa lay nuyu di ziar mhm. di ñëpp di nuyu ñu fi teew ñëpp mhm. di nuyu jiital nuyu bu sama adversaire di ko nuyu di ko ñaan a jàmm di nuyu ñi ma àndal di ñu nuyu caméraman bi yëpp di nuyu place bi ñu nekk borom place bi Ibulaa ñu ngi koy nuyu di ziar ñëpp waa Otoporo waaw bu loolu weesoo maa ngi nuyu sama mbokk séeréer noo foxol séeréer mais sim naa nun mhm. ngono fay sima ngono mi caato ndoxono ɓinum te naa sim naa no jaajafaalun to leyanu nga jeya combat kono nu ñaantene nu baat ñaan ke ko yalla cey ndam imbeer ma imbeere ina dal mhm, waaw ciatel na wone bopam mom mu ngay ñaan ndam ci sereer modja ginaaw bu la bu ma del soité ci yow kañ kañ nga mujjé bëri ak kan nga mujjé bëri waaw man le 9 juin la mujjé bëri ak kewal suñu borom jox ma ndam ci kawam mhm. mu melni modja bu ma la sétlo da nga ne ci benn lancer ma lañuy wax bobu batay ba ni nga mujjé ci kewel lolu lan la modja da soppi doxalin wala ma yalla la rek yalla yalla la bëri naa fi daanu bëri naa daanu am naa combat man ak caat maa ngi appel si sama ay mbokk li ko dagge ngor wakaam yoof di leen wax waa yoof que Modja doomu yof la bu amee ndam yoof moo am ndam bu ñàkkee ndam yoof moo ñàkk ndam mu ngi waajal combat ak caat école de Boy Bambara ngeen ñaanal ko suñ borom defal ko si ndam di woo sama ay mbokk yëpp nag li ko daggee tund jandeer bi yëpp waa njar mburit njar tiijaan waa morolan waa kër baba waa kër njob rawatina nag yi nga xam ne ñoom am amuma ñu dul ñoom muy ahlul kunti gi yépp di ko dagge ndànk guyet sanc buuna ndeer ba jàll njaasaan képp kunta nek bo déggee annonce bi jappal ne mom moy sa yëgal ndam la bëgg sama combat ak caat barke mam cheikh bo lan mo motivation nga jël caat wa caat espoir la comme man rek ma doon espoir comme mom lamba soxla suñu combat xama euh ta fasiga fasinaaru góor yi rawante rawantewuñu si ngexal quoi fu rawante si ki

lima la ci wax moy li gëna clair moy dama dama dama gëm ne mako man motax ma jël ko tamako wara ko war a daal Modou yow mi yow ya man chat mi yalla baxna yalla nañu ak suñu borom may tal ak fekkee arbitre genn suñu diggante suñu borom mi am ndam jox ma ndam ci kawam barké Cheikh ya dakk bëri kon ya dakk xex ya ëpp fit lepp dool lepp lepp ya ko ko lepp <laughs> kon mom day ñëw pour tëdd si yalla daal mo yor ndam man naka man mu daan ma ah Modou nak toujours làmb nga gis ku fi ku daan ku la man mais yow li nga wax yëpp bu dajee si yow doole ji fit bi mën a bëree gi mais dogalu mais dogalu loo lo ah ka mooy dem naan damay loo xool ci ñi nga gise caat mu toog nii nga xool sa bopp nga sañ ni yaa këpp doole maanaam da xool xam ne entraîné wul wala daa nekkul ci dara wala lu ko foo teg li nga wax non xooluma ko par image nii parce que góor moom boo ko yabee rek day fekk ngeen ñamante ba pare xol maka ka mu tuti wala mu reuy wala mu ki man non non man lima ma gëm wax jusqu'à la preuve du contraire te ma ngi ñaan suñu borom li wax mu doon li am moy ma daan ka jëla bu gaaw bu leer bu set. kon ko waaw mbir mi da jarut a sori deg nga wax ji mu ngi ni yaangi ni doole ji bëree ak lepp ci mom lañ fas weeg nag ngexel gi mom da ngay ngexel par rapport ak nim ko waxe bu re rawante la mom ci ginaaw ngay dess mu ko wax waaw bu dee rawante moom si ginnaaw la ñuy des loolu moom amul benn problème l'essentiel am doole yàlla moom am doole quoi man amuma doole yàlla am doole non dañoo bëgg nu ngeen ñëw ci doole yi bëre yàlla moom kun fa yàkkoonam jooju xajul si doomu aadama damaa doole yi bëre ji laa ñu wax waaw man maa la gën a metti ah voilà négocier wu ma ak yow nag dama bëgg nga wax ak gars yi fulla ñu jaay combat parce que prince dafa toog ay at yu bëri ñëwul kon donc bu ñëwaatee ubbee ñun ñaar dafa wara saparal mbay guuy gi de neex na ñu bari fa ni ñepp ak may wone naan ma mbay guuy gi mom de du la may jàmm saat ni ca bassin ba lay wax nga ne ko doko may lat deggol li ma ka wax prince dafa ñew ax lu bes kon daf ci wara am lu bes si entre man ak mom na def la ma def la ay affaire da yalla mo yalla doole loolu dafa jare tay wax mais man mala la doole mala man maa da daa ko bëri loolu nag faaw nga wax ak mom de en engage que toi way caat da nga wara wax waaw baba xamal xamal liñ ci li ñu affaire lamb la signature la comme li mu wax fu ñu jaay combat bi xam nga ne mojjam yi bu toogee naa moom ëpp doole moom ëpp doole entraînement day wax lu ko neex. Hmm. Sénégalais ñi seetaan xam ne moo mojjam mënu jaar fenn boobu ma doole. sa gannaaw xamal leen nag fii dafa teng. teng fii dafa teng laa la wax. teng de mooy lu dëgër këj. maa ko gën a teng maa ko gën a bërëngu xamul sax. di koy yoot bi rek alquranu karim maanaam boo xamoon li ko yoot dina bàyyi li muy yoot non xamul sax li koy xam nga wax na ne ñoo bokk génération xëy na maa ko xaw a jiitu si mais ñoo xaw bokk génération loolu dëgg la

ah moom ni mu la daa mel ni indi woo déggoo ma de le jour si kattanu suñu borom dina wax bés mbër day xajam xamoo loolu waaw yow de say takkaay moom doy na waar mbër day xajam waaw ah, yow takkoo day mhm. ah dégg nga de moom lu teng xam nga nee na nag nga xool li ngay wax ndax bés ba du baax ci yow du baax si man moom ay waxam la rek xam nga mbër mu nekk da nga wax li nga xelaat euh, dafa teng loolu sax nangaal ka moom man dama boole ay qualité yu bari si làmb te mbër yi xamaguñ ma man damay technicien di tacticien te si kàttan suñu te si kàttan suñu borom damay prouver leneen si kawam parce que dama ko war a daan. dama ko war a daan voilà. war koo daan est-ce que mën nga koo daan. déggoo li ma la wax dama ko war a daan amul ay mën naa kaa daan ma kaa daan de yàlla laa ñaan dam parce que moo am ndam mais man li ma gëm man bu may daan caat xëy ñu rob ma sax moo ma gën a mu daan ma barke Cheikh bu Mouhamad kon dama dama war a daan caat. xanaa daa am lu ne seen diggante. non dara neewul suñu moom mii masuñoo jote dara mu ngi nii maa ngi man dafa am fu ma war a dem si làmb mujj man yow tey danga nga soppeeku de mujj takk sa verre yu ñuul sol sa jaget mu ñuul nga ñëw attaqué caat nii rek doo ko may fu mu yekkeeg nàkkam te bu làmba jaa ngay comprendre nu mel nii nga koy defee bu arbitre soufflé li may wax nii yéen a ngi yor seen caméra bu arbitre soufflé damay dox si kaw Matar Ndiaye sa mbër mi loo ko jox yàlla Matar Ndiaye jox ah Matar Ndiaye gëj naa kaa gis xaw ma kaña Matar gëj naa kaa gis wala Yoff la joxe poobar bi tey non Yoff dafa am lu mu soxla te am nañ yaakaar si man waaw da ngeen a jël première bi voilà kon nag kon nag man dama war a confirmer lépp lu ma war si combat bi dama koy def le le reste si loxo yàlla nekk mooy dogal mais bu ma waree wax dinaa wax mais du ma wax lu débordé su ma waree jëf dinaa jëf mais du ma jëf lu débordé dama la wax ñaari wax technicien la tacticien la caat yow technique ak foo ci toll buur géwél man lépp laa boole technicien tacticien ak doole yëpp laa boole technicien mag taxicien foofu laa koy fekk bazar yi rob sànni fal déggoo typhon waaw le typhon de typhon moom typhon moom lu nekk si kanam da lay bazar di lu muy xaar si fu ma jàpp si moom yàpp du karaw day damm yaa wax lii feneen fu ma jàpp si moom pour yàpp di karaw day damm te bu doxee sama kaw combat bi day gaaw fi ngeen di jàppande fépp na yaakaar na ay yaxafay déggoo ma de bu doxee sama kaw combat bi day gaaw mu neex day gaaw mu naqari day gaaw si kattanu yàlla fu di jàppante ay wax laa la wax bu doxee sama kaw mu bëñ day gaaw mu bëgg day gaaw. yow it yow it de ruus nga ko may. yow nga taxaw da ngay jaaxaan nga ñëw da ngay dëpp. ci kattan suñu borom. waaw Lamine waaru. dama bu ma bu ma ñëwee day gaaw mu naqari la mu neex la su ma ñëwee day gaaw bu bu ma yow yow boo taxawee mat. booy ma taxawee. Ah, ñuy àtte. booy su ma taxawee ana prince su taxawee ab ab bu yooyu nga wax doo ko jëfee. li nga lekk li nga añee moo neex rek moo tax nga nekk fi di mbel mbeli rek da nga da nga da nga xam ne yoof da nga xam ne yoof nga toll rek yoof moo la jege moo tax nga nekk fi di mbel mbeli rek waaw bu suubaa mbel mbeli mbel mbel bi nga ne doo ko tal sax lu leer la yow jaay taar nga ñëpp xam ne jaay taar nga dem la ko commencé gars yi commencé mbër caadi jaay taar la am zone nga mel si jaay taar ñëpp xam nañ la si jaay taar caat yow rek yaa fii ñëw stade di takka di takka ay fulaar yoo xam ne c'était en Kenya aux États-Unis caat tamit caat da nga xeewi quoi on se dit la vérité caat yow sa ay morom yëpp bàyyi nañ la fi ah caat ba changé xamul ni man maa ñëw stade di tax ay fula ku nekk ak sa ku nekk ak sa ak sa stade. man soxla ma kenn roy ma soxla ma kenn roy ma si. Modou Lo bi mu foo paa dañuy solee coupé bi Modou Lo a uti ay coupé mais loolu moo xeewi ay fulaar ak ay tintin wax ay kenn xamul caat yow ban façon nga kii. moom laa bëgg ak am fulla ak daan voilà xama xama xama xama lu xama xama lu problème xama lu voilà mu naxare la man ak yow ñooy bëre combat moo ñu boole voilà moo ñu boole mais man dépassé wu ma la jaru nga ma dépassé naan ay non non loolu affaire dépassement la parce que man respecté wu ma non meru ma ma ak kon devant ma la l'essentiel ma ne la maa tey manoo si dara ah, waaye maa tey diis na di amee ah, waaw maa tey diis baal ma ak si jullit mu ne mu ne amul baal ma ak ma ne ka maa tey damaa dama dóor wala la maa def tey ba teyaatoo mbaa waaw yow maa tey ba fi mu toog nii nee na moo tay ba tayaat. fi ma toog nii bu ñu ñëwee si làmb ja boo ko waxee mu mu métti sa kaw. lu leer laa la wax. man nee la bu arbitre soufflé sa kaw laa jëm nga ne ma su day gaaw ma ne day gaaw c'est parce que boo ma xaaree ma jaaxaanal la nga ñëw ma dëpp la. yàlla baax na yàlla yàlla yàlla yàlla may wér ak tal ak fekkee rek. ba la suuf ana prince boole maa ngi ñuy dem bàyyi ñu fi. yàlla yàlla may wér ak tel ak tak fekkee. man de prince mu may la ko may ko suñu mbokk may ko mbokk. mu ma leen àtte de prince. amiin mais lu tax nga takk weer yu ñuul yi yow non dara amu si dama doon génn nii rek gis ne yaa ma gën a xam loolu la temps bi laaj tey ma takko comme moom ni mu solee laa fa rek ah. loolu kese la amul leneen <laughs> est que da ngay bañ mu gis say bët sax no samay bët fan sànq ba léegi maa ngi summi sama ay verre ah. ah? ah sumil ñu xool waaye doo toog ah, ah déet dañu xool ah, bët yi est-ce que bët yi xonqul ndax naa ah, ñamul dara tey xam nga daa ñëpp xam nañu ma man man man ñëpp xam nañu ma waaw doo tekki fee dafa am fu ma jógee am a dem non du ma ko tekki gars <laughs> waaye du ma ko tekki lu nit ñi xelaat baax na mais man je sais que li tax may sonn pour suñu waa kër la te si kattanu yàlla barke Cheikh bu mu xam ma duma xelaat caat ah <laughs> yow déggoo li ma la wax. kii mbëru mbëru mbëru mbëru séréer la de. Eh, moom masula daan. caat waaw ah, man masuma daan. Ah, kii daan yàllaa ko yor. mais li ma war laay def. mu neex caat mu naqari caat li ma war laay def. te loolu laay wax. ma xamal leen. ma xamal leen. kii buy dem ngeen mujj. day jé gaal. baal li ngay wax. te foofu mun foofu ñëw ñu ñoo ko moom. xamoo loolu. Ah. mu nekk fu mu nekk fu mu nekk ñu ñoo ko moom. ku mu nekk ñoo moom fay pour ma pour ma leeralal la lool nga na ma da ngay man man nëbbuuma de ku muy dem nëbbuuma ko moom ku muy dem ñoo ko moom ama sama nijaay moo wootee ne ko ki ko koy ngemb ah, ah. maa ñoo bokkoon ñoo bokkoon de génération ñoo xam ne la boo a préparé waaye fa nga nekkoon lu la fa jële moo dem ba dugg ci loolu la moo la fa jële mu neex la mu naqari la par force dimanche dama fay dem xaar leen ma ndangaan sa xaar leen ma ndangaan sa mu dimanche dama fay dem faral a boo jégee doo bëri de boo leen si tous waaw may ma boo jégee doo bëri sa xaalis nga yàq ji rek dimanche par force damay dem sa xaalis nga yàq ji rek demal rek sa xaalis mun ne rek kon mbir maa ngay baax mun ne moom fa loo manoo manoo maa xofloo manoo ma naa dem ñu nax ma par force damay dem bokk affaire ba mun de wax si yow de xanaa tamit dem mun de ay la ay yooyu yow la engagé man gëmuma loolu loolu dernière position la si man caat damay rey sama bopp pour daanu mais dama yow doo ñaan lu yow yow doo ñaan lu ma ne doo ñaanlu yow ma ne doo doo ñaanlu voilà mais par force par force laa la par la force damay dem munde manoo si dara. pour dinañ dem John war dem munde mais par force damay dem. dinañ dem John war dem munde danaa fa dem danaa fa yóbbu ay ndàngaana ay munde ñu ñoo ko moom munde maa si ñoo ko ak ak Modou Lo ñu ñoo ko moom. yéen ñett yaa ngi si taag Modou Lo moom munde. si kattanu yàlla. kon Modou sa waay dina amoo kan. waaw léegi léegi xam la moo amam macha allah waxtaan wi neex na combat ba no pro oto dañ ciy wax sax nag Ibou Laye kooku bés ci waxul dara dayu pour auto seeni aña njëkk neex ceeb bañ lay jox fi la am lu ngeen di wax Ibou mi pour auto fi ñu dalal tay en eh. tant que jeune bu taxawal li mu jëmi top na la mboro de ah, no, grand defal dank rek non mu ngi lay nap no, non non may may may may tuuti rek may ma tuuti boo waxee boo ma déglu rek may wax rek may ma ma déglu rek may may dama soxla dama xiif nga ne may may waaw léegi tàggool waaw non moom na yeggali ba pare. non waxal moom pare naa pare naa moom dina am non non. caa tàggoo la. non na wax na wax. non doo tàggoo. non na wax ñun ñun ñun ñu ñu ñu ay ay mooy loolu quoi am benn problème na wax. Ah, man du ma tuub sax cigarette. waa léegi tàggoo leen. dañuy dañuy lancer appel rek di di di woo suñu ay mbokk di woo ah, ñëpp di woo ñëpp ñu nga xamante ne. Euh, am nañu leen si combat bi rawatina waa Ngor waa Wakaam waa Yoof gi nga xam ne ñoom laa am bu ma amee ndam Yoof moo am ndam bu ma ñàkkee ndam Yoof a ñàkk ndam di woo tund jandeer bi yëpp li ko dagge bayax njar mburit njar tijaan kër njob kër baaba tiwaan di woo kunte yi fépp fu kunte nekk li ko dagge ndànk gu yettu sanc buuna ndeer ba jàll njaasaan li leen wax ñu ñaanal ma ma am ndam si kaw caat kon yow Modou Dia caat waaw waaw li may tàggatu mooy jàkkatu sama mbokk séeréer rek nu ma foogale séeréer mais sim naanu ngonu fay sima ngoon to Tivaouane waa Tivaouane di sant sama supporter yëpp di sant waa NGB bàyyiwuma kenn di sant waa Grand Dakar waa Taïba xam nga waa zone A waa zone B di sant waa Colobane bàyyiwuñu kenn képp kuy bëggee Thiar daal Thiar mu lay sant di la gërëm xam nga di la ñaan nga dolli ko ñaan ñu dolli ñu ñaan yàlla may ñu wér may ñu tane ba talak fekkee ñu dem defi comme ni ñu ko daan defee comme d'habitude yàlla defal ñu jàmm may ma jàmm may sama adversaire jàmm xam nga may axlu lamb yëpp jàmm di ñaan yëpp jàmm di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm te yàgg te wér wala kon salaamaaleykum salaam borom du bii nag du Iba Mar ba moom fii moom bu fi poème tey yow yemal ci sa buur damay wax de Sénégal yëpp a ngi dégg salaamaaleykum nuyu naa leen Babacar nuyu mbëri nuyu ñëpp ñu fi teew ñu nuyu waa Sénégal yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñëpp sutura jàmm at bu bees bi ñu dugg yàlla def si jàmm si réew mi képp ku si nekk li nga bëgg yàlla defal la ko di nuyu association promoteur yi di ko teg si loxo président bi Pape Abdou Fall ak vice présidente Ndeye Ndiaye Tyson ak Fallou Faye secrétaire général ak ñëpp daal ku lim juum voilà di nuyu fii ma nekk muy pro auto fii nag suñu diwaan la sam patron waaw Ibulaay sama patron la na koy jiñante non mooy sama patron parce que man maay fii fii ñu ne maa fi euh, responsable achat lépp lu fi ñëw si oto rek maa koy jënd voilà ñu doon ay jeunes ànd ñun ñëpp boole suñu doole pour yëkkati waaw parce que ne rek yëkkati pro léegi combat bi nga taxawal nii combat bi moom déjà bëri coow ndax kii daa jóge yoof xaw ma lu ñu ko jox kii moom moom moom itam xaw may mbiram ndax mujj na sax yaram ma bëgg a tàng waaye daal loo ci mën a na combat bi taxawal ko yomboon waaw jafewul jafewul parce que. ah mu nee daa jafewul ndax sooy doon waaw jafewul si Modou Dia xam nga sa daf ma jege lool. caat mi it la ma jege ndax am na balaa may tëgg moo Dia caat laa njëkk a tëgg te am na fu ñu jaar yàlla def teraanga suñu diggante tam waa voilà moo Dia doon frère tam ñëpp ay jeunes lañ ñoo maase. waxtaan la rek prince ma nekkee ma nekkee village mu woo ma dama ko bu soobee yàlla combat mag moo jëbi dinaa ko bëri dina dinaa bëri fi ma woowee laa foofu laa ko waxee na solo fi moy foofu la ko wee dama lay sama sama mbokk buñ nangou buñ nangou te nako parce que lamb lañ fi yaaka deug day tungom seere wa lolou am na affirmé na ma que confirmé woon na ma que dina beure mais xam nga rek tam Modou ja dafa toll fo xam peut-être yaramam mo tangone ba dafa bëggone kuta kut ku combat am taxaw quoi té c'est normal tam mbeur mom da nga war di bëre soo bërewul leneen ngay def le retour de presse naka ngay ñëw bi yoon inshallah ginaaw combat bi nga ñëw bi wa retour bi du comme ñi fi won jëgëw ñu fi ben saison rek lañ tok teggu ñu voilà te comme mbëri dañuy année blanche promoteur te mën naa année blanche soo xamul fi nga jëm foog nga taxaw ba mu leer nga demaat. Yékini Junior Sa Thiès foo ci toll. ñu ngi si kawam. fu mu hmm. nekk nii damaa toogoon di xaar ñii pour ñu ñëw def signature bi dañ ma woo urgence ma dem si loolu ñu ngi si di liggéey ñu ngi siy liggéey nañ ñaan yàlla rek def si sutura su si yàlla defee sutura incha allah dina taxaw am nga yaakaar combat ba taxaw mais man am naa yaakaar sax tëgg Balla Gaye Boy Niang hmm. boobu ak beneen affaire yi gëm-gëm la rek ñun gëm nañ mën nañ liggéey xam nañ lan la làmb di doxee xam nañ lan la léegi le reste moom yàlla mooy mottali waa mais bu dee fit la ak war a def non dañ koy def incha allah. kaay taxaw ni ci diggante ñaari mbir ngeen foto bi yow dafa am loo fàtte. wax ma ko drapeau Marcel Diagne la. Marcel menn mi. Marcel Diagne suñu Marcel ma Lamine. waaw bu jam ñaajo Lake City drapeau am la. te ku xam Marcel xam ko ak Pape Diouf ku ko xam xam ko ak Aly Ngouille Ndiaye ministre de l' intérieur. xam Boucher l'américain xam Matar Soubatel mm-hmm. Mouta hein, Tafa Diop un mm-hmm. drapeau la mm-hmm. ñeneen Abdou Karim Mirsi drapeau particulier combat La Grosse Rose euh, tête de fil. la Grand Dakar mais chat, dafa am sas parce que Grand Dakar biscuiterie yi yëpp dañ HLM ñëpp a war a gunge caat ñu ngi koy commencé xasee dara que léegi du mobiliser donc loolu caat dama koy wax duggal fépp wax ak ñoom parce que arène national lañ jëm te arène nationale du caaxaan. lamb bu af moom bëgguñu ko. suñu bëggee presse delluwaat gàddaayaat rek ma af. donc te kiitam itam moo ja yoof yëpp moom lañ yaakaar. Malick ñaar toog na cinq ans bëriwul. kenn juutu ko yoof donc tundu lebu yëpp dañ ko war gunge ah Yoff Wakaam Ngor ànd ak moom incha allah dernière signature bi mu ngi amee arena arena arena la Dakar arena lay amee le 4 avril Pape Diouf di direct di fa tëgg euh, grand bége si la ñuy def seen dernière signature une semaine après combat bi am donc Diamniadio Lake City tam am na lu muy wàcc dinañ dem Diamniadio dinañ dem Radisson daje fa def fa benn affaire bu nice di gërëm ñëpp encore waa jur yi yaay pap ah maam xarit ñu jaay ñëpp ñu ngi leen di gërëm voilà di gërëm waa xarañ famille yi ñoom ibulaay ak daal Pa Maguette Ba ñu ngi koy gërëm di gërëm journaliste yëpp am na solo voilà bégg nañ leen jaajëf buur drapeau Marcel Diagne moom suñu drapeau la Lamine ñu koy nuyu mais di nuyu tamit sama soppe Pape Diouf ndax ku la xool ne la maa la bëggal sama bopp moom mu ne su ci dara Pape yàlla na sa jàmm yàgg borom sénération consciente di nuyu buuse di nuyu gaa yëpp da waa Dakaractu posé guñu <laughs> kaay leen photo wu yéen ñaar waaye kenn du buur géwél borom buur géwél info wala buur géwél ti waaye Modou Dia doon xool ngay Modou Dia mii Modou Dia mii day ndal Modou Dia mii tey waar na Modou Dia dafa yaaru dafa teg kaaraloon da dafa da taxamtu ah bu taxamtiku sori wu fa de ah man da bu Modou Dia yi